fu ñu toll rek ci réew mi war nañu waxtaan ak nit ñi te delloo si xel yi te xam ni am réew moom ñëpp mënuñu nangu lépp bokk nangu lépp waaye lépp lu ñu bokkul nangu it war nañ ko mën a waxtaanee si njëkk ak teraang ci dal ak yar ba nga xam ni xëy na solution mën na am bu amul it au moins nit ñi mën nañu waxtaan buñ jubo xayrun buñ juboowul itam ñu teg mbir yi fi ko yoon wax ak fi ko démocratie wax loolu dama koy wax rek pour mën a xamant réew mi ne euh, lépp lu ma yëkkati en tant que njiitu réew amu si lenn loo xam ne euh, ab parparloo moo ko lal lu dul ni démocratie war a doxee bu ñu gisee lu koy gàllankoor wala nar a nekk ab gàkk-gàkk ñu teel ko fànq ba nga xam ne duñ fa yegg si ak ay jafe-jafe kon loolu bu fekkent ne ñëpp ñoo bokk yéene bi si liy jëmale Sénégal kanam foog naa ne réeroo mën na bañ a am kon en li cas lii lii taxawaayu président la république daal ci Sénégal mooy lépp lu état bi doxal bu amee ñoo xam ne gisewuñu ko noonu nañ ko wax te nañ ko war a waxee ak fañ ko war a waxee ñu xool li ci saafara bi mën a am ñu def ko